bu leen di fàtte di abone di bës cloche de notification bi di aimer vidéo bi loolu ne si am solo dina tax contenu bi di gën a yaatu ñëpp di si mën a jot di ko topp mu ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax ñëw nag si vidéo bu am am solo ay révélation comme ni ñu leen koy defalee saa su nekk gannaaw ba arrestation ki nga xam ne nag moo di Moustapha Diakhaté aadama Gueye dooree ba léegi nag coow la jamono bi ma ngay bari surtout ñi nga xam ne nag man ñoo fi nekkoon si ancien régime bi jamono bi nag ñëpp jombi nañu ndax ku nekk yaa ngi jàpp que ne daal ñëw ñu fëgg sa porte li ko waral nag nekkul leen lu dul alalu réew mi nga xam ne nag jëloon nañ ko di ko pasar pasaree kon nag kenn xelam dalul si ñoom dinañ si ñëw ak ay révélation yu am am solo ana ban yoon lan war a mën a jaar daal teg Sénégal si yoon waaye képp fi jaaroon def fi lu dul yoon ñu daal lay traqué tek la loxo tek la ci yoon ba alal reew bi nga jël nga daal di koy génne dinañ ci ñew ak ay révélation yu ama am solo comme ni ñu leen ko waxe rek moy nonu amna nak ñu japp que ne daal reew mi jamono bi comme dañu télé daal li ñu mëna layé moy né ne dañuy wër nit ñi di leen japp pour nak ñu génné alal reew mi mu nekk nak lo xamné nak nag ñenn si mën nañ ne ancien réew bi ñoko ko nekk di wax di leen ci ñew lool lepp dawul def jamm mu munoo am jamm parce que yow. mënuñu laa dénk alal réew mi mel ni sa alali baay maanaam gaa yi la gën a xam ñu jubari de ku jubari xam nga sa bopp ku jub nag it xam nga sa bopp gaa yi war a dem kaso ñëpp ñoom seen bopp xam nañ ni kaso lañ jëm ñu fa wut a demit aussi il paraît que xam nañ ni ñoom duñ fa dem parce que defu ñu lu leen fay yóbbu mais mënuñu laa jox l'argent contribuable te alali réew mi ñu jox la ko ci diir bu gàtt ni lii da koy doxal si digganteeg réew mi ak yow nga jël ko def ko sa moomeelu bopp. di maye xam nga li mu daan def c'est pas normal di dajale ay maire di jëloog xaalis di séddale même loolu xam nga ne xaalis boo liggéey doo ko def noonu gars yi ñun kenn ku ci ne xam nga li ngay daj ba ba amul xaalis doo ko liggéey ba pare pour tourné di ko dajale di ko saam noonu loolu kenn xaalis boobu moom mënut a doxee noonu xaalis boobu moomu képp mooy véhiculé noonu mais toute façon moom convoqué nañ ko lundi bu dee moom liñ koy waxal mooma du dellu bu dee du moom it dellu këram jërë ngeen mat dañ ko fàtte gars yi dafa man dañ ko fàtte euh, euh, xaw ma nu ñu koy waxaatee waay waay waay waay waay jéng jéng yi liñ doon jéngee nit ñi euh, liñ doon jéngee nit ñi te ñu takkaloon ko elmal naka laati ki ki ñu wax ne moom lañ joxoon marché bi naa nag ñuy wax ne xaw ma doomu ay sata taal taal sàll lañ ko joxoon xaw marché boobu Euh, jéeng yooyu li ñu waxoon ne moom lay jër ak li ñu wax ne moom lañ ko jëlee xanaa dañoo fàttali dañ ko fàtte ah lam yooyu lam yooyu ñu takkal nit ñi tànk ci tànk yi maa dama koo fàtte de fàttali leen ma ko dama koo fàtte dama ko fàtte ka ko commandé woon ka ko commandé woon bu leen ko fàtte de ka ko commandé woon bu leen ko fàtte kañ joxoon marché marché bi bu leen ko fàtte bu leen ko fàtte de waaw lam yooyu ñu daan takkal eh, eh, gars yi ci seen tànk yi bu leen ko fàtte de bu leen fàtte ña ko doon def de ña ko commandé woon ak ña ko jëndoon ak ñi joxoon marché ba yooyu yëpp leen leen fàtte eh, fàttali leen justice magistrat yi bu leen fàtte ñooñu de bu leen fàtte ñooñu de na ngeen leen woo de na ngeen leen woo laaj leen ku leen joxoon marché boobu ak ak ak surfacturation bi ñu ci defoon yooyu yëpp xaalis boobu bépp marché bépp marché boo xam ne ñi fi jógee tegoon nañ ko ci ndoddoo askan wi mu nekk ay fen ak i tappale ak i tiriyan nga xam ne dara amu ci jël jël alal jurub jeex surtout ko ci seen bopp dem seen yoon bépp marché boo xam ne fictif la woon amul nañ jàpp ña ko ña ko ña ko ña ko joxe woon ak ña ko exécuté woon ñun ñëpp ak ñu jël xaalis bi def ci seen poste bu dee marché boo xam ne itamit dañ ko def sur euh, facturation nañ ko doxalee baaxut jël euh, def ko sur facturation yoo xam ne lal ko ci noo compte askan wi pour arnaquer leen jël alali réew mi séddoo ko ñoom ñëpp ñooñu ñëpp nañ leen bàyyi xel bu leen ci fàtte kenn ku ci seen xel mi dañ de na ngeen ko fàttali na ko fàttali gars yi na ko fàttali gars yi buñ fàtte kenn buñ fàtte lenn lépp luñ fi def ci luubal nañu ko topp càmbar ko de A sedd buñ ci bàyyi kenn buñ ci bàyyi nit ñoom ñëpp képp koo xam ne dafa war a dugg kaso nañ ko dugal ci kaso gi te nag euh, li waa ji waxoon li ma déggoon doon am nañu bàyyi ay tëj benn weer rek ñaari weer rek ñetti weer gis nga dafa am loo xam ne ku ko def dañ la war a condamner sa kii dund te it nag peine de mort na bokk ci prioritaire yi nga xam ne ensemble moom la ñuy indiwaat peine de nañ ko indiwaale sàcc ak fen nañ ko criminal criminalisé sàcc ak fen nañ ko criminalisé ba bu ëllëgee kenn dootul jël alali réew mi ndax réew mi mën a baax te ñaar yooyu feeg ñu ngi koy bàyyi duñ ci teg benn fen bu diis réew moom kenn mënu ko defar sàcc ak fen réew moo xam ne sàcc ak fen dafa walaabal réew moom kenn mënu koo defar kenn ku mën a defar amul kon loolu nañ ko criminalisé rey agressé yooyu yëpp nañ ko criminalisé. rey nit ci tey ko agressé nit dégg nga sàcc alali réew mi sàcc bu mën a doon rek am na am na parce que sàcc bu ko criminalisé même xar yi ngay gis ñuy sàcc jur yi ñuy sàcc sax dootuñ ko dañ ko bàyyi dootuñ ko sàcc réew pour alal alali réew ma ñoom pour mu aaru pour mu sàmm il faut que ñu criminaliser sàcc ak fen sàcc ak fen nañ ko ci boole sàcc ak fen nañ ko boole ci li ñuy criminaliser peine de mort nañ ko delloo si at loolu la askan wi dugg gis nga li ñu ay dund bu seer beeg dëkk bu na xawee beeg yooyu yëpp lii moo koy réglé bu lii réglé rek dëkk bi neex réew mu naat nit ñi am jàmm xewal bëri parce que ku xam réew mi ñi fi jógee liñ yàq ci réew mi doo jàmbat doo jàmbat réew mi naqari mukk te duwul ne dañoo réglé seen dañ ko regle kenn mënta euh, baaxal réew mi wala nga neexal réew mi te réglé woo sàcc yi nga xam ne ñoo jël alal réew mi yëpp doo ko dem seen yoon il faut que ñu réglé loolu. dëkk bi dana métti dana métti kay surtout ci yéen surtout ci yéen ñi ko yàqoon dana métti de ñi nga dégg ñuy jàmbat yëpp dafa seer dëkk bi dafa métti dafa li dana métti de dana métti xam ngeen yéen a gën a xam ne dana métti ci yéen xam ngeen ne dana métti waaw mais pour métti bi nag sedd il faut que ñu jëkkee li nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko teg askan wi métti googu ñi ko teg Sénégal yi teg ko askan wi nañ leen jàpp ñoom ñëpp ku ne ku ci ne la nga ci alal réew mi ñu nangu ko ko ci réew réew mi man a baax mën a ñu mën a defar réew mi mais bu dul loolu réew mi mënul defaru mukk fekk defuñu loolu réew mi du defaru wasalaam te te Macky Sall bis buñ koy jëlee di ko indi ci réew mi di ko attee nañ ko takkal lam yooyu bracelet yooyu nañ ko ko takkal mu wàcceeg moom mu moom Sénégal na wàccaale ci na buñ ko jëlee buñ ko jëlee pour war ko siise na wàccaale ci réew mi bracelet de bracelet yooyu ñu doon takkal ñu ñi seen tànk Macky Sall bis buñ ko jëlee war ko attee na wàccaale ci réew mi bracelet